parce que nag gis ngeen li xew ci wàllu élection législative nee nañu danañu ko def le 17 novembre man def defe woon naa ne xeex njiitu njublang ci Macky Sall laa koy mujjee def mais yi ñii dañoo njublang nga njublang ba mel ni garabu yoo ci dëng conseil constitutionnel ton président délégué le 11 juin juillet du mois 11 juillet et maintenant ça fait deux mois Quand nous publié la décision sur le journal officiel le 17 maintenant pendant deux mois nous avons document bi garde le 12 bi je di def réciter récité bobu mu réciter. récité dicté préparé bi mu koy guenné képp ku bok Pastef ku dem ci plateau de télé da ngay téléphone won sénégalais né yow yor nga décision conseil constitutionnel man japon n'a ne Macky Sall dong lay mais nekkati ñi ñoo gëna njublang Ismaïla kon vous les sénégalais vous êtes avertis parce que élection yi ñu jëm li ñu ci bëgg mooy gis ngeen dindi nañu parrainage gis naa waa ju ñàkk xorom sax mu naan wuy parenage bi ñu dindi waa seen waajooju te yoroon sécurité bi te ñu jox ko poids xam nga inspecteur des impôts bu ñu dégg sécurité waroo aay lu mu tudd voilà nee na am na ñoo xam ne dindi nañu leen parrainage bi xam naa ne ñu ngay fecc ma ne ko man bu fekkee ne man mii maa la taxee wax yow ça veut dire que xamuloo ma man bokk ci élection ak ñàkk bokk ci élection élection yii ñu jëm bu ñu ci bokkutoon ma takk sama ndigg baatar campagne parce que ma ne fa ma toll woon ak Macky Sall foofu laa toll ak ñii te ñii duma leen may dara moom Ousmane Sonko bu yeboo na xam ne lu mu ko jaral pour yàq réew mi parce que yàqul réew mi parce que dafa bëgg dafay yak parce que dafa cuune dafay yak parce que xamul day yak parce que mënul day yak parce que amul xam-xam pour liñu bëgg ci réew mi mën ko matalé lumu ko jaral nak pour mu mëna yak yàq réew mi moom dana xamné dana ma ray wala ma ray ko mais réew mi dana défar inshallah donc ñu ngi inviter les forces vives que ñu bolé sen doolé pour que l'élection yi ñu jëm ñu jox majorité opposition Et yaakaar naa ne suñu campagne sax mën naa bañ a metti man de wax naa leen wut leen ay son yu bari rek yu yu bax yo xamné mom sëñ Ngundu ak waajale sen son rek ngay teg mom moko wax réew bo bëggé mu dox opposition bi ngay jox assemblée ñom ñi nguru nga jox leen exécutif bu ko sommes ñun assemblée opposition bi contrôler l'action du gouvernement et ce qui est mooy c'est réew parce que quand dafa am ay nit ño xamné ay ñu a xel lañu parcours quand je vois une Anta Babacar mais ku preuve quand je vois Tcherno Bokoum mais ku am xam preuve quand je vois un euh, euh, euh Tass Thierno Alassane Sall mais nit ku am probité morale extraordinaire quand je vois un Pape Djibril Fall c'est un jeune qui a montré que amul yox mérite de mu Sénégal donc il y a des jeunes qui sont là qui sont une alternative crédible buleen mag ñi gunge bu leen mag ñi jàppale mën nañu defar réew moo tax li ñuy wax ne teg nañu pôle judiciaire financier d'accord ma woon ci CREI yi parce que CREI yi nañu ko tëggee baaxul waaye bii ñu teg démb man gis naa ci ay magistrats yoo xam ne kenn du leen def loo ñu def barke Xaadimul Mustafa gis naa ci man ay magistrats yoo xam ne kenn du leen def loo ñu def donc sama xel dal na ca ñooñu reddition des comptes oui ñi sàcc alalu réew mi nañu ko goqi te ñu fexe ñu bañ koo goqi parce que lu nit goqi amatul njariñ nañ fexe ñu génne xaalis bi ñi sàcc alalu réew mi nañu leen tëj ci kaso yi pour Sénégal mun a récupérer xaalisam waaye li may bañ rek mooy làq dóor doom doom làq doom dóor doom moo tax ñun ñu ne pôle financier boobu dana nu fa déposer ñetti plainte ñun danañ leen jox liggéey parce que nag